waaw asalaamaaleykum wa maa ngi leen nuyu di leen siyaare di leen dalal di leen tatagal di leen wax ne man may président comité d'organisation Gàmmu Siweul waaw maa ngi tudd Ismaïla Ka wa organisation ren bi comme niñ ko ran doxale rek wax deug yalla gis nga xalé yi ñi ngi ni ay jambar lañ wax deug yalla wa dem ba tay semaine bi yëpp ñun ñoo ci bokk nek wa di liggéey vraiment am content euh, trop ci xalé yi waaw waaw euh, euh, a yaatu. Mhm. ren nan a waaw comme dañ ko daan doxalee rek wala euh, gën a gën a gën a yokk daal doole. waaw ndax bi ñu toll nii gàmm gi gàmm siwal ku nekk xam ne ne day gën a dem kanam chaque ne day gën di bëri nit surtout ren jii waaw fas na yéene daal def loo xam ne nii lu ñu mësutoon def wax dëgg xale yi fi ñu toll jàmbar lañ ñëpp ñu ngi si liggéey bi daal waa waaw non teg nañ euh, ay stratégies yoo xam ne ni euh, si kanam tuuti incha allah bi dinañ ko gis quoi waaw. mais ñun euh, ñu ñëwoon tuuti ko waa ren moom feeñagum na ndax organisation bii ñuy def ren mosuñu ko def te xam na gis nañ ren ne. na eh, na affaire yi daan mel ren eh, mel na lu raw lool waaw moo tax daal organisation bi nañ daan kii gën nañ def lu raw lool daal waaw. Euh, waaw. sëñ bi xalifa bi moom nit la koo xam ne ni wax dëgg yàlla kenn amul fayam nit ku baax la ku oyof la ku bëgg nit. waaw ku bëgg nit kuy tatagal nit wax dëgg yàlla yàlla ñu ko yàlla fayal waaw ndax moom euh, si ñu ngi ko commencé si seen maam alaaji ibrahima xorje nga xam ne mooy papay sëñ bi waaw ba joom yàlla tey jii ñu ngi see góorgóorlu te wax dëgg yàlla gisuñu si alière avantage rek lañ si gis waaw waaw sëñ bi moom kenn du moom moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaw surtout bu fekkee ci wàllu organisation bu fekkee dafa am message moom den da nga koy lancé mbokk waaw comme li ñuy war a moytu mooy li ñu euh, tere si dëkk bi ñi jàppale ñu si xam ne ñun ñëpp benn lañ gan ñii ñëw ak ñun ci fekk si dëkk bi ñun ñëpp benn lañ waaw loolu moom ñu ngi koy ñaan ñaan euh, gan ñëpp quoi ñii ñëw waaw. lan lan lañ li nga ñu tere si dëkk bi bokk na si musique moom bëgguñu ko si dëkk bi waaw ay tux bëgguñu ko si dëkk bi waaw loolu moom lépp loo xam ne nii moom euh, ñu ngi koy kii moom loolu moom tere dañ ko si dëkk bi. waaw. bu fekkee yi waaw mbokku taalibe yi xanaa li ma leen di wax mooy ñi gën a jàpp si organisation bi ndax ñun euh, comité d'organisateur am nañ problème bëgg nañ ku ñuy jàppale ndax chaque année rek dañuy am problème chaque année li ñuy def si tente bi rek boo ko calculé dina mat 2 millions te taalibe yi xale yi taxaw fii ñoo koy kuréel si seen ñaar dërëm seen dërëm bëggoon nañ nag euh, euh, ñi nekk suñu gannaaw ñi jéem ñee jàppale. defal ñu ci participation yoo xam ne bu ëllëgee ñi mën a am lu ñu mën a lu ñu mën a déparé. souvent ngeen ñu gën am ci wàllu organisation bi. bon problème yi ñuy am diggante fii ak Kaffrine suñu amoon koo xam ne dinañ jàppale nga xam ne bu gàmmu jotee ñu mën a am oto boo xam ne dafa ñuy jëlali bagage ndax matériel yi Kaffrine la jógee ay chaise day dem ay 2016 3016 waaw amuñu oto boo xam ne moo koy indi ñun xale yi dëkk bi ñooy dajale seen dërëm seen ñaar dërëm ñi fay oto yi. dem di indi instant yi ni mo xamne amna auto bo xamne mu ngi jëm Kaffrine ñewagul mu ngi jëlé ay bagage lool mom seen problème bo xamne buñu amone bu ñu amoon ku ñu si jàppale dina baax trop dal waaw ok jërëjëf rahmatullah ah, ñi ngi siyaare ñop di siyaare wa kër gi bayyi wuñ kenn goor ak jigen mag ak ndaw ñi ngi di siyaare di wax kër gi moy kër Mor Parga Ka ah, gamu gi nak mu ngi ci andak ak ay rakam ak ay magam di ko dundal mu nekk gàmm gu xamante ni gàmm gu mag la gu mucc ayib ñu ànd suñu baay suñu sëriñ si Alaaji Tayiru Ka ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal fan gudd ak wér gu yaram di ziare suñuy rakk yi nga xamante ñoom lañu ànd ak si guddi gi ku si mel ni ah, suñu mag Mor Xorja ak ah, Tafsir Ka man mii di wax seen rakk la Abdoulaye Ka maa ngi jógee ba seen louis ànd ak délégation bu mag ah, fekk fi samay xarit samay doomu ndey كوسيميني مودو بيبكا خامني موني تيرتو في اك سماي جربات اك سونو وا دك ييب دال ني زيار نيوب تيرتو ناني تيرتو بو رافيت كون ني دوخ سن سليمان مو ياغلي وقتاني اعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب البيت والهجب منزل الوحي والايات والكتب ثم الصلاه على من ارسل رحمه للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد الله القالق على سيدنا شيخ أحمد التجاني البرسق المكتوم تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن أبو العباس أحمد بن محمد التجاني بعد الحمد والشكر إخوة الإيمان إخوة أمتلي نزوركم ونقول لكم مرحبا وأهلا وسهلا بكم نيونغي سانتيال دي جولي كي سانغو سانغي سيدنا محمد di nuyu waa dëkk bi wu sell bi nga xam ne mooy madinat siwal ñu xam ko ci dëkku diine dëkku lislam waaye dëkku tariqa tijaan yi nga xam ne ki fi wutu cheikhuna tijaan yi mooy cheikh alhaaji tahiru ka moom mi nga xam ne yàlla daf ko gërëm yonent bi gërëm ko waaye tariqa cheikh na tijaan yi itam gërëm ko ndax xam ngeen ne bu ñu ko gisee rek suñu xel dem ci Seydina Muhammad ca njàngale ma waaye ci image ba waaye bu ñu ko gisee yi tamit xel yëpp day delluwaat ci cheikhuna tijaan yi mm. kenn du laajte ndax kii taalibe cheikh la wala déet te yaakaar naa ne lu yàggul dara ci ay fan yu néew rek mu ngi jógee Maroc ziyaara ji woon soppeem ba yal na yàlla nangu ñaam ñaan yam fa ñaan yëpp tey nag ñu ñëw fii ci Siweul comme ni ngeen ko waxee rek ànd ak waa MTélé donc di doxal guddi gàmmu gi ndax El Hadj Malick moo ne woon ala enzimo laylal wiladati xisbatan waaye isa lam yakun nahwal arami hadolo ñu jógee ca moom alarba ji passé ca Tiwaawoon tey nag yàlla dogal seex Tahirou ne day ngénte kon Maodo moo feete juddu gi Cheikh Alhaji Tahir nee na moom it ngénte yonent bi sallallahu alayhi moo koy feetee moo te tey yaakaar naa ku ñëw ci dëkk bi di nga xam ne yonent bi moo xewle ndax damay wax ne ñoom dañoo taal télé bi ba noppi waaye wan ñu imaasu sayyiduna Muhammad waaye ñu ànd ceeg suñu soppe yi ki nga xam ne mooy suñu njaata gi ci kër gi di suñu buntu muy euh, ki nga xam ne moom mooy Abdallah Ka ak bi Cheikh Tahirou Ka nekkoon fële ca Dakar université di fa jàngee ak suñu wóolare Mortala tey mu ngi fële ca bitim réew waaye xelam ak xalaatam yëpp mu ngi fii ñoo daan ànd ca daara ja ndar di jàng ba tey yàlla dogal lii mu dogal suñu diggante ñu ànd fekk suñuy soxnaak ak suñuy wóolare mm-hmm. kii suñu xarit la moom it ñu koy wax Mor Diop mi ngi dëkk Wande di tàggkati yonent bi ñun ci lii la ñuy xëy ci la ñuy gont mm-hmm. ba ji tey jii ñu ngi woon Tiwaawan nekkee ko fa ca jeexitalu burdu ba ba ni gàmmu gi jeexee tey ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi di siwal mm-hmm. waaye jiitu fii suñu grand ki nga xam ne moo ñu jàngal tagg yonent bi muy Alaaji Mbay Donde Ndaw te xam naa ne moom it mi ngi ci yoon léegi mu yegsi ci kàttanu yàlla waaye di masawu na gars fi fekk si bu baax ndax da ngay ñëw ñu wàcc lal yi génn néeg lépp ñu jël ko rek jox la ko di la ko teralee waaye dañoo xam lan mooy njëriñ li nekk ci teral say ganu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonente bi moo neen man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri ku gëm yàlla gëm bés penc yi fal yukrim day fahu na nga teral sa gan te it tamit teral gan dafa nekk loo xam ne teraanga ju kenn xamul nu mu toll ñoom bu ñu jëlee seen lépp jaayante ko yonent bi bu ñu dajeek moom danañ xam la Maodo waxoon ne wa mawliduhu bihi sharafun wa xayrun fa fi tanzimi in jaawu sujuni kon duñ leen mën a tàggu mukk comme ñun ay tàggkati yonent bi lañ te yëkkaluñu yëkkatiwuñu ay bayit ci mu Muhammad ñu ànd ci di nuyu suñu yaay ju sell ji ci kër gi di ñaan yàlla mu xëcc fanam mu yaay Amin Kala di ñaanal njabootam yëpp lii ñu man ren bu déwénee yàlla na yàlla man loo leen lu ko ëpp ci darajay sayidina Muhammad ألا أسمو ليل الولادة إثبتي إذا لم يكون نحو الأري معدو صليا يا إلهي آه. وسيا أبدا هنا محمدنا مختار في الخدام وسليا إلهي ku def ni yàlla nga ziar yonent bi abada ana muhammadana muxtaar suñu loxo yi ci kaw waawaay jibun tayat hedi ma ay كذا اتباع الذي ياتي من الامم لينيا ادف لني سي سانغ با تي مدينه ابا انا محمد madana mutar loxo yi ci kaw wa kazuru sikrin salatun suma nusuratu dina suma nusuratu dina suma nusuratu dina suma nusuratu dina nasiril aqi dina suma nusuratu dina wa mtele dina suma nusuratu ku ci detabi aljala dina suma nusuratu dina waa MTL suma nu suureetu ci gàmmu siiwal bi suma nu suureetu yal na yàlla fay leen suma nu suureetu barke bi yonent bi suma nu suureetu ci di nasiril aqi ci diina haqi bil aqi ci diina talhatul aqi ci diina ñett yi mooy tariixa ci diina ku ci dee tabbi aljana yóbbaale say yaay ci diina yóbbaale say baay yóbbaale say goro yóbbaale say njëkke yi góor yi jër ku la ca may jaawar di tabbi aljana koo ca may jaawar mu dugg aljana ak ndey baay ak ndey ak baay yow tiijaan bi déglu ma boo jullee suba mbaa jullik timis wekki sa kurus jàngal fatiha muy benn yoon astaghfirullah azimallah la ilaha illallah huwal hayyul khayr ana sa pay sëñ la ilaha illallah huwal hayyul qayyum ana soppay Sëñ Tayiru la ilaha illallah huwal hayyul qayyum fanweeri salaatul fatih billaay moo bëri njëriñ di salaatul fatih Maodo ne di juróom fukki yoon nga jàng xëy la la la ilaha illallah nañu màggal yàlla buur yàlla kenn la nañu màggal yàlla la yàlla juurul kenn te kenn juuru ko amul nday amul baay loxo yi ca kaw laa ilaaha illallaah jóg leen màggal yàlla nga jàng jawhara li mu juróom-ñaar yonent bi teew yonent bi teew Ababakar teew Ousmane dafay teew Omar dafay teew Seydouna Omar teew Ali dafay teew Ali dafay teew Serigne Tayrou ka teew Serigne Tayrou ka teew borom siiwal teew borom siiwal teew borom siiwal teew sëriñ Tafsir day teew borom siiwal teew sëñ Ismaila day teew sëriñ Tamsir day teew sëñ Ismaila day teew sëñ Babacar teew teew sëriñ Babacar teew Abdallah teew Abdallah teew Chéri Ami teew Abdallah teew Chéri Ami dafay teew Abdala teew Tayru Jallo teew sëñ Tayru Jallo teew Tayru day teew Mortala day teew Mortala day teew Mortala day teew Morka teew Morka dafay teew Morka dafay teew Tamsir Gune teew Tamsir Gune teew Morka dafay teew ana soppey sëñ Babacar soppey sëñ Babacar boo soppee cheikh yow bala nga deelul walleyo wallan yemuuta man yuhibbu cheikhana illa isa sardi waliyan bihtina bokki si wali dendeng way tabi aljana lani jigéeni waawaañ wi danuy dogo ca aljana lani bokki waawaañ wi danuy dogo jigéeni waawaañ wi danuy dogo ca aljana ngeni danuy dogo ca aljana ngeni soppey danuy dogo ca aljana wa is atakaana masuróoran yu xaalu kenn mësu koo gis liir buy taaya kenn mësu koo liir bu ñu tusngal kenn mësu koo muy ma ci baaraam meew di ca génne jànq jëy naa mbal meew ma di génne jéggey naa mbal sow di yokk siwal gaar la bilaay siwal gaar la siwal gaar la bilaay siwal gaar la sëriñ tay rong siwal gaar la sëriñ tay rong fi bilaay siwal siwal gar la kamal Serigne Tayrong fi bilaay siwal gar la kamal Serigne Tayrong fi bilaay siwal gar fi bilaay siwal gar la kamal kenn dal kanama tunal bila alam na wasal liyan ya ilahi walay wajhi odombaligo madana al mukhtar fi laqida way wa imtale dangeen ñëw ci guddik Seydouna Muhammad waaye xam ngeen ne màggal yonent Yàlla Muhammad day ànd ak i teraanga te suñu soxna yu baax yi ñoom la Serigne Mansour tuddee woon kirij ne kirij boo yoree sa oto da nga koy dugal ci maal bi mu mel ni du dara ci oto bi. waaye balaa nga xam njëriñam nga paan ci kaw tele bi sa xel dina dellu ci kirij bi kon soxna yi ñuy kirij ñoo wutu soxna umu xayri ca waañ wa mu tax du ma dagg wéy wi te wéyalu ma leen jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal sëriñam barke mooy cëram jigéen ju baax nangoo muñal walaay sëriñam wawa duwele nangu muy ñala maam Ousmane barke muy cëra jigéen ñi siiwal déglu leen jigéen ñi siiwal déglu leen yoon waa ngi nii kon fonku leen sini jëkkër bi lay bu leen sakku leneen lu dul ngërëm jigéen ju baax nangoo muñal ah, ah sëriña barke mooy cëram soxna Fawade nangoo muñal am Ousmane barke mooy cëram ah jigéen ñi siiwal déglu leen jigéen ñi siiwal déglu leen yoon waa ngi nii kon fonku leen sini jëkkër bilaay bu leen sakku leneen lu dul jigéen ju baax nangoo mu ñal ah sëriñam barike mooy cëram fawadu wele nangoo mu ñal mam barike mooy kon nag duma daaneel ma jox leen sama soppe bi sama rakk yi mu woyal leen yonent bi ñu door delloo micro bi ñu teewaat ko at yu bëri ci darajey Seyduna Muhammad كوك موي متحر البدر المنير موي ياسين تاه خاسر وعاقب موي مختف منجن ونجم الساقب سرين بابا كرسينيانا عجب لنا بجاي بابك العظيم عين النعيم والصراط المستقيم لطيف يا مخصي فأتمم غردا لنا كذا المراد حي صغردا على المقفي سيدي ساداتي صلي وسل واسع الحبات زمآن المسلي يا رب الفلق زمآن ماء الوسل يا رب الفلق فنجه مولاي من شر القلق يدعوك من يرتب الحروف من صلاة فاتع دعاء قمن معتمدا بعونك الكريم وتم قصده بذا المنسوم أجب لنا بجاه بابك العسي عين نعيم وسيرات مستقيم أجب لنا بجاه بابك سيرين بابك سنجلا عين نعيم ku sopp sëñ Tahirou loxo yi ca kaw siyaare naa sëñ Tahirou mu baax ma tàllal ko say loxo te naan ko may ma siyaare naa sëñ Tahirou ka mu baax a acca mu baax ma talal ko say ku sopp borom si walloxo yi ca kaw may nu ay ngëneel ak maqaama واو خلق ميني رك بدور تماما زيارنا سنتايرو كام سرينتايرو سانغلا سماي لوغو تنان كوم تيمان بيه وان ويتبرك باسمي ولا تعد في شيء طريقة رسمي وقد قسم المولى له xayra xasmi taraqaa yonen yéeg na taraqaa yonen yéeg na ila sab'in tibaaqi bi jismi moom yonent bi keroog ba muy xotti asamaan yey yéeg malaako yaa ngi koy tàccoo waaye tàcc leen yonent bi waaye laqad asrafat amlaakuha wa tajallati moom sayyiduna Muhammadu Rasulullah moo tax ustaas yonent bu mu doon rek yàlla daa wax ak yow fii ci suuf xool yonent yàlla Muusa ba mu nekkee fee ca Égypte alquran nee na israa naaran fa qaala li ahlihim kusoo inni aanastu naara laali aatikum minha bi qabas aw ajidu ala naari huda فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلعنا عليك إنك بالوادي المقدس التوى مفق دالمي وينك ينتبي yàllaa ko invité boppam ba ca xadra ba alquran nee na subhaanala si asra bi abdihi laylan min almasjidi alxarami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ترقى def leen nii ma woy yeneen sànq da ngaa woy jigéen ñi ku fi baax rek jigéen la jur xoolal yeneen bi keroog bu muy reñaan jigéen a ko invité woon reer moom ummu hani jibril ñëw fekk ko fi ne cëpp ne ko muhammad sa borom la invité invitation bu dàq bi kaw asawaar yow sayduna muhammad rasulullahi yéen waa mtv yàlla na yàlla lawal seen baat ba mu tourné fu ne ci àddina bi ci barke sayduna muhammad rasulullahi a ah, maa ngi jégalu bu baax wax dëgg yàlla xaw nañu guddal di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokku leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sàkku it ngeen ñaanal oustaz mi Souleymane sànq rek dama ko wax fee ci kër sëñ sëñ euh, Ismaïl ma ne Saalum moom sax dafa woy ne Saalum dañuy am muus di ko wooyee dañuy am gaynde di ko wooyee muus nee ba gaynde gi far xëy doon muus mu ne waaye bawal dañuy am muus di ko wooyee gaynde ba muus mi xëy doon gaynde mooy Saalum dañuy am ku mel Tayru waaye duñ ko xam ñuy dogal dawal ay oto di dem fu ne ci àdduna bi pour sàkku ji ñaan waaye Saalum dañuy am ku mel ni oustaz ndaw mi Souleymane muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy joge fii di dem ci àdduna bi fu ne pour wuuti waykat te bu ñëwee li muy wax rek yàlla xam na ne loolu lay wax wala sax lu ko gën a neex kon maa ngi lancé appel di ko jaarale ci seen télé bi di wax waa Saalum ngeen dimbale seen waykat yi seen doom Souleymane Ndaw li muy tagg yonent bi amul kenn ku ko mën ngeen dimbalee ko di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla lafal cet barke yonent bi salaam moo ko xaasi mbay ñoom ñëpp tabaarakallaahu yàlla na yàlla barkeel ñoo ngi jégalu waax asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh macha allah Cheikh Tahirou kon nañ lay jox kàddu gi rek ndax kontaan bu baax ñu ngi ñaanal MTélé yàlla na jëm ca kanam bañ dégg ko ci monde entier bi jaay Muhammad ñu ngi fasante ak yéen kóllare incha allah bismillah Cheikh Tahirou